complexe Cheikh Ahmadou Khadim liggéey bi mu ngi avancé bu baax a baax gros œuvre yu ci bëree bëri noppi nañ jamono bi ñu toll ci phase finition yi ñu amaloon lël doon waxtaan lu jëm ci peinture yenn couleur lañu war a tànn ngir def ko li nga xam ne moom moo di complexe bi loolee bâtiment témoin bi nga xam ne moom lañ tànn te Touba matério doon ko liggéey jot nañ ko visité ginnaaw bi ñu amal waxtaan ak techniciens yi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllum peinture architecte yi comité pédagogique bi ba ci waa Touba matériaux tey nag ñu ñëwoon tam di daje beneen daje boo xam ne architecte yi ak Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne moo moo moo moo yor tabax yi ñoo woote woon borom xam-xam yi ngir bëgg ñu waxtaan ci lii lii fi nga xam ne fi lañ toll fii mu nekk nii mooy fi mujj mooy nag bâtiment yi nga xam ne bu noppee couleur yi ndax xam ngeen ne couleur sax dafa am solo ci lislaam naka la war a mel nañ ko la war a couleur yi war a mel karo yi naka la war a mel fenêtre yi nga xam ne moo ciy nekk naka la war a mel bunt yi sax daf fay indi ay échantillon yoo xam ne dañuy tànn bunt boo xam ne moo gën a méngoog fu mbooloo di ne waaye moom méngoog moo méngoog ak ak ak dëkk bi moo ngi couleur yi itam peinture bi men méngoo ak climat bi nga xam ne moom lañ nekk fii ci Touba loolu lañ daje woon tey ñu def fi waxtaan wu am solo woo xam ne yaakaar naa ne bu ñu ci noppee yeneen bâtiment yi itam bâtiment bu noppi rek dañ koy dañ koy daal di mën a sanc ginnaaw ndaje mi am na ay proposition yoo xam ne génn na ci loolee mu nekk lool ñi nga xam ne ñoom ñoo di techniciens yi daañ ci xalaat waaye mu war a nekk ay couleur yoo xam ne day méngoog lislaam waaye méngoog bërëb bu sell bii di Touba. ndaxte muy entreprise ak lépp lu ñuy def. laata ñuy tàmbali du ñëw rek dem à l'aveugle dañuy xam lan lañ bëgg a def ak fan lañ bëgg a jëm te képp ku xam kuy murit xam sëñ bu mag bi sëñ Touba xam ni mën nañ ne bokk mën nañ ne maanaam mooy scientifique bi gën a mag te lépp lu ñuy def muy ñun bu fekkee lu ñu jàng ak lu ñu lépp moo ñu ko gën a xam te am na lu mu bind bàyyi fi am na ay orientation ak mbir yu fi bàyyi ci loolu lañuy ñuy tënk waaye àdduna buy dox lépp loo gis dafa am technique. ay charte ak code ñun ci loolu lañ bëgg a tënku tënku si nag mooy waral ba bu ñu defee lii tey ëllëg bu ñeneen ñëwee naka def leen am ci lu ñu tënku loolu moo tax débat d'idées bi ci loolu la architecte yi toog nañ yeneen spécialistes yi ñun ñëpp toog nañ wax ba am lu ñu tënk léegi nag ci loolu lañuy def waaw. waaw yi dañuy comme fu mu toll nii tënkaguñ te ki fi taxaw di la coordonnateur professeur Mor Faye yaakaar naa ni te aussi tamit il faut ngeen may. comme kilifa gu mag gi dafa joxe wax ñu xalaat joxe une idée te tënk gu ñu dara te bu lépp lu ñuy nësër lu ñuy wax lu ñuy tënk moom mooy tënk te fu mu toll nii man mii di wax ak yow même bu dee am nañ ci xam-xam xamaguñu ban couleur la ñuy définir exact dinañ liggéey jébbal leen ñoom ñu xalaat jox ñu ba ñu valider ba mu yegg si sëñ Ahmad mu yóbbu sëñ Muntaxa bu ñu yeggee foofu nag. bu ñu noppee yaakaar naa ni ñoom dinañ mën a communiquer wax couleur yi dañ daam mais fu mu toll nii mënuñu wax ci couleur. affaire couleur yi euh, day loo xam ne nii dañ ko war a euh, dugal ci lu gën a yaatu daal maam daal bu ñu wax affaire couleur dañuy bëgg lu ñuy wax euh, complexe bëgg complexe am lu ñuy wax identité visuelle identité visuelle. bu ñu waxee ci mbirum communication wala mbirum publicité mooy li nga xam ne nii mooy élément yi nga xam ne ni koo gis rek sam dem ci benn entreprise xam ngeen ni par exemple bu ngeen gisee bâtiment Sénélec tout de suite di ngeen xam ne fii Sénélec la bu ngeen gisee bâtiment Sonatel xam ne fii Sonatel la dañu bëgg tamit bu gisee complexe bi xam ne fii complexe amul xadim la léegi élément élément nag euh, euh, visuel ay identité visuelle euh, ay ay éléments yu bari la am na lu ñu wax ci biir logo logo ci biir ci élément ci identité visuelle la bokk ak couleur yi aussi ci la bokk ak loo xam ne daal du ay couleurs yu ñuy choisir au hasard les couleurs yi euh, li ñu doon wax ne tey mooy fexe ba am couleur yoo xam ne koo gis sa xel dem ci lislaam sa xel tamit aussi dem ci murid yi ak sa aussi dem ci bâtiment yi nga xam ne moom njëkk yëkkati ci dëkk bi rawatina ak jumaay Touba ak daaray Kaamil dañoo bëgg daal li nga xam ne bu ñu ko defee euh, daal day maaseeg li am ci dëkk bi maaseeg l'islam wax maaseeg li nga xam ne moom la ñu wéru murid xam moo loolu ci leen waxtaan ak léegi ba def ay proposition yoo xam ne ni ñu ngi sukkandiku ci li si ñu mën taxaa bëgg pour nga xam ne daal li indi comme ay proposition muy ay couleur ak ay design euh, buñ ko acté rek muy li nga xam ne moom mooy méngoog li ñu bëgg a def la muy muy projet pédagogique complexe bi. comité pédagogique bi ñoom nee ñu li nga xam ne moom lañ doon liggéey mu jëm ci waajal njàng mi loolee noppi na. fii ak école di tijji daañu war a mën a door li nga xam ne moo di njàng mi. ndax euh, dañoo gis ne gannaaw waajtaay bi moom noppi na ñaareelu état bi ma doon wax te jotuma ko woon a leeral mooy dañu tàmbali nag jëfandikoo li ñu doon waajal mooy exécuter wala démarrage liggéey bi effectif démarrage effectif moo tax bi ñu xamee ne euh, commission bu njëkk bi euh, wala comité bu njëkk bi seen liggéey mat na bi ci toppaat muy comité de pilot pilotage élargi bi ñoom dañoo tàmbali di jëmal liggéey bi léegi maa ngi koy wax si Abdou Lahad ne ko dañoo daal di soxla lu mat juróom-benni salle de classe yoo xam ne moom dañ koy daal di soxla léegi ñu équipé ko équipement yi ci war ak ay bureau bàyyi itam bi wax nañ itam ak sëriñ bi ngir euh, euh, jàngalekat yi ak ñi nga xam ne ñooy euh, administration bi daal di taxaw léegi léegi ndax loolu mooy tax nag ñu waajal étape bu mujj ba te mooy université bi di dox dëgg-dëgg feek yeneen bâtiment yi du noppi allah danañ tàmbali ay classe test yoo xam ne dañuy daal di xool programme bi ñu tëraloon nag muy loo xam ne système système éducatif la. ñi nga xam ne nag ñoo war a njëkk a jàngee ci université bi ñooñu Serigne Mountakha Mbacké Bassir moo leen tànn. Serigne bi ci boppam. mooy waxal boppam ni mu bëgg mu tàmm mu doxe ni dafa wax ne dafa bëgg dafa bëgg a yeesalaat dafa bëgg a suuxataat wuur wu njëkk ba baat boobu la jëfandikoo mooy ñu njëkkoon a ànd ak Cheikhul Khadim radiyallahu anhu seen njaboot la bëgg fu ci ne mu am ñu mu fa jël ñëw dajale leen ci benn barab ñu yar leen na nga xam ne na lañ doon yare seeni maam yu njëkk ya mooy yarub lislaam ba nga xam ne dara raxu ko yar bu sell ñooñu nag bu ñu tàmbalee fépp foo xam ne mën na faa yegg ci biir murid yi ak ci jullit yi ndax daaree lislaam la amut amut amut xaj ak seen waaye nag ta li ñuy wax naan dox bu ne day am jéego boo njëkk a tàmbali dafa bëgg daal ñi nga xam ne dañoo yaroo seen maam dañu sëriñ bi da leen a yàlla dogal ñu génn ku ci nekk mu yabalaat la fa nga bàyyi ko woon nga dem fa di defarewaat te ku ne xam ne jamono ji ni mu demee fii mu nekk nii te dañu wax ne Tuubaa gii ba ko Cheikhul Khadim radiyallahu anhu di sanc ma ñuy santat yàlla ndax ci wax nañ ci weeru rajab la ko sancoon yàlla dafa dogal boobu ab àll woon boo xam ne kenn newu fi woon dafay ñëwoon ngir rawale si fi njaboot gi yar leen yarub diine bu sell boo xam ne dara du ko kooj léegi nag gis nañ ne àddina bi jaxasoo na sëriñ bi nag bëgg moom defaat formé waat génération jiil boo xam ne ñoom dañuy jaruwaat ci yarub mag ñu njëkk ña bu ko defee nag ñu ñu ñu ànd nag ak jamono mën a tollook jamono waaye waaye nag di dund seen diine ni ko lislaam bëgg ndax jullit bu sellal mën naa nekk fu ne du tooñ kenn du yàqal kenn waaye nag dana xam lam am mu jàpp ko téye ko mbooleem ñi nga xam ne ñoo seq liggéey complexe Cheikh Ahmadul Khadim ñi ngi wéyal liggéey bi saa su ne di amali waxtaan ak i lël boole kook baral liggéey bi loole lépp teewul ñuy sàmmonte qualité bi ni nga xam ne noonu la ko xalif général des mourides Serigne Mountakha ba siiru bëggee muy liggéey bu mucc ayib méngook jamono waaye sàmmonteeg li nga xam ne moom moo di lislaam rawatina njàngaleem Cheikh Ahmadul Khadim